بسم الله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول الحمد لله رب العالمين mbokki internet yi nga xam ne nooy topp Wadduha TV tey nu fas yéene partage ak yéen benn kayfiyaat boo xam ne kayfiyaat la boo xam ne day ubbi day ubbi xéewal tey day maye bayre tabarakallah def na lu ñepp wala ñu bari ité wonon bayre tabarakallah dañ leen delo ci aya wala qad jahna fi samai burujan wa sayannaha halin nasir aya bobu ku ko bind 103 103 moy tolo jamilu wadud jamil moy tar wadudu moy ku ñepp warmal ku ñepp jox cer ku ñepp sop ku ñepp am ci ñom mom ciofel tar ak ciofel nak moy tolo 103 tabarakallah mom nga koy bindu wala hajjana samay buruja wa saya naxali nasirin ay bobu ngay bindu 103 so pare nga bindu ya jamilu ya wadudu 103 fa tabarakallah ñaar yoy ngay bolé def ko safara def ci parfum bo mané am lu wert nga def ko si sango ko juroom ñaari fan bo si mané def misk ak safaran tamit nga sango ko juroom ñaari fan tambalil besu dimanche bes bo sango nak jema la def askar ay bobu walaxajaxna samay buruja wa sayyamnaaha linnasiri su jàppande nga def ko 103 wala nga def yaa jamilu yaa waduudi 103 durant sept jours yi nga xam ne moom nga koy sangoo lii ku koy def tabarakallah suñ borom dina taaral xolu nit ñi jublu la ndax euh, bayre du taar wante xol xolu doomu aadama yi lay taaral ba nga xam ne macha allah ko dégmal rek dina am si yow e cofeel dina am si yow e yek dina am si yow e yene kon mbokk internet yi fi tabarakallah loolu lañ leen baaxe woon nuy ñaan yàlla barke lépp yàlla sàmm ñëpp fi tabarakallah yàlla yombalal ñëpp tamit tëdd ak tibak sangu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu sen mbokk la alxaji Modou Cissé Mara Cissé de wax ne wadduha point org ku fa dem rek information ko fa wa rahmatullah